sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéeyal liggéeyal Rabbil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 mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye ganna di am yéene fas yéene àndaat ak yéen ci sunu ñetteel bi jataay bi nga xam ne ñoo ngi ko duppee jaar jaari xaadimu rasul di siyaare bu baax di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaqa alxalifatul am li tarixatil muridin sunu boroom yàggal ko fi lool ba mottali mbooleem ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaarim rasul te mu ànd kook njabootuk sëriñ Tuubaa gépp noo ngi siyaare bu baax sëriñ Ngom ñing mii ñu àndal liggéey bi ba tey cheikh Mouhamadul Amin jóob moom sëriñ Ahmadou jóob moom Dagana di nettali bi nga xamee ne sëriñ tey ba wax na sëriñ bi ne ko ñoo ngi lay jaale sa waajur na mu gën a rafete ne ko nag damay sàkku nag ci yow nu ànd maag yeneen mag yu maaseek man nu dem fa la joor jaale ko ko baab xolam sedd ndax moom kat xaritam la woon doonoon itam ab sëriñam bu muy diisool bu nu demee xamal ko sa taxawaay mu samp la fa mu sampoon sa waajur bu boobaa day aw yiw képp nga ci gis lii moo di sama xalaat ana yow Ahmadou Bamba lan moo di sa xalaat Sëriñ Tuubaa xaadala wallaahu maxtaaralahoo nag tontu ko ca teggin ya ne ko li nga wax ci jaale gi ak dénkaane yi rafet na lool yal na la ci yàlla tabaraka wa taala fay aw yiw fegal la ci lor waaye am maam mbirum buur boobu nga tudd nag man Ahmadu Bamba duma dem ci buur bëgguma itam seen àdduna duma sàkku teraanga ci kenn ku yàlla tabaraka wa taala mi ma mbur yi Cheikh Mouhamadul Amin Diop moom Serigne Ahmadou Diop moom Dagana nee na bi nga xamee ne sëriñ Serigne Touba xaadala wallahu maxtaaralahu wax na lii mbooloo mépp dañ ne tasax ak wax bu dee ñu baax ñi moom li leen yéem moo di kàddu gii mu wax nga xam ne day mel ni kuy ndamu nekkul ku bëgg àdduna ak fi ay atam tollu nga xam ne day fesal ne moo leen féete kaw ñoom ñépp bu dee niti àdduna yi li leen yéem moo di lii muy bañ ak ni mu doone tedd nga ak xiiwal gu teew ci ñoom ba tax ñu jàpp na daa di ko wax mu daal di def ñaari dog yu rafet yu yéeme ci waxi mbooloo mi genn gi moo nekk nii ba'da a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahim qaalu safihun li sarfi anhum albasari wa raxbati an sawi lxisyaani fi lbasari qaalu safihun li tafwidi ila maliki amri an ilkawni fi safwi wa fi kadari qaalu safihun li qubbi xaaliqi lmaliki walam akkun lilbaraya ashtaki darari qaalu safihun li kawni lam axaf axada وما رجوت سوى الرحمن سي القدر قالوا صفيه لقفوين جمل جئنا لسيق سديا فقل الخير في الخبل فقلت قلوا سبيلي واتركوا عزالي ما لسوى الطاعة رحمن من وتري ما لسوى الله إذ ما لحد خيبتي وجاءني ملكان الدهر من وسري ما لي قدا xiina asrailu yaxbitu nii ruuxi nazirun siwa mawlaaya fi losari maa li xaddan yowma alxasri xalqi kullihimu rabbun latifun siwa mawlaaya sil basari maa li isaa durra adnaani wa azmanani xawsun raximun siwa mawlaaya sumari inna safuhuniya fi wirdi axastu bihi li sayqi sidiya sayqi albaddi walqadari fala akunu rasidan misla rusidihim fa sawfa yamtaazu lyawma min axsami siyami alhamdulillahi in kaanat safahatuha idaamatul wirdi wal askar wal fikri sëriñ tuuba xaadal wallahu maxtaaralahoo di wax ne nit ñi dañuy wax ne dama nitoo diku ngir ñàkk gi ma xool seeni mbir ak moytu gi may moytu ak féetale gi ma féetale sama lépp ci yàlla tabaraka wa taala bu neexee ak bu naqaree te geesuwuma kenn ak sopp gi ma sopp sama borom bi ma bind ak ñàkk gi ma ñàkk jàmbat sama lor kenn kudul moom ak ñàkk gi ma ñàkk ragal kudul moom te du may yaakaar kudul moom mii dogal ak jël gi ma jël wirdi ci Seex Sidiya radiyallahu taala anhu mi kilifa ci diine ma ne leen bàyyi leen ma bu leen may yedd ndax man Ahmadou Bamba amuma senn soxla sudul jaamu yàlla tabaraka wa taala bu ma demee ba dugg ci biir suuf yi ñaari malaaka yi dikkal ma amuma kenn ku may wéeru kudul yàlla tabaraka wa taala bu nu demee ba asrail alayhi salaatu wasalaam di rocc ci sama ruux amuma kenn ku may dimbali kudul saa boroom bu nu demee ba dekki ba sunu borom subhanahu wa taala dinu dajale ci benn barab amuma benn boor bu dul moom bu ma yërëm moom mi moom mi ndeefi bu ma amee lor wala ma am tawat amuma kenn ku may xettali ku moom bu ngeen ne dama nito diku ngir jël gi ma jël wird ci seex sidi radiallahu taala anhu mii sëri ñëpp ñi nekk ci taax yi ak àll bi na ngeen xam ne du ma nekk nit ni ngeen ko nekkee lépp dana ma sa leer ci ab bis maa ngi sant yàlla ndegeem sama nitoo diku moo di saxal wird ak sikar ak xelaat yi beneen dog bi moo nekk nii baada auzu billahi min alsheytaan rajim bismillahi arrahmani irrahim qaalu li yarkan li abwaabi solaatini taxus jawaisa turni kullu maaqini fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi wa lastu raadiya xayru alilmi wa diini wa lastu arju wala axsaa siwa maliki li annahu jalla yuhnini wa yunjini anni ufawwidu ahwaali liman ajasu an qaali anfusihim ajza almasakini aw kayfa yabxasuni qubbul xutaami ila jiwaari man duruhum rawdu sayatini in kuntu saa xasanin aw kuntu saa watarin dacawtu salcayni qabla raa'i wasini wa huwa almuciisu allazi laa say an yucjisuhu wa huwa almukawinu ma shaa ya takwini in saa taajila amrin kaana saa ajalin aw saa taajiluhu yabta ila xiini yaa man yaluumu fala tukzir wada azali is lastu min faqdati dunya bi maxsuuni in kaana haybiya sudun fi xutaamihumo fasaaka haybu nafisun laysa yuxsini sëriñ tuuba qaadal wallahu maxtaaralahu di wax ne nit ñi nee nañu ma demal ci buntu wuur yi kon yow Ahmadu Bamba na am lu bari ci alal ju lay tax a waxtu wu nekk ma ne leen saa borom subhanahu wa taala doy na ma te doyloo naa ko man Ahmadu Bamba gërëm ma lul xam-xam ak diine ragaluma kenn yaakaaruma kenn kudul saa mi may musal di ma may man Ahmadu Bamba nan laay jële sama mbir di ko bàyyeeg ñoo xam ne seen mbiri bopp yooyu ñu nekk da leen ticc ba ñu mel ni ay miskin man Ahmadou bàmba nan la ma bëgg poñaxiiti àdduna di yóbboo may dëkkaaleeg ñoo xam ne seen kër yépp ñooy dëri seytaane bu ma jàqee wala ma am xaajo damay woo borom aras mi nga xam ne dara tawu ko lépp lu bëgg amal amal ko lépp lum mu bëgg mu gaaw lépp lu mbëgg mu yeex faw mu yeex kon yow mi may yedd bul balil say wax boo yow yoba bàyyi ko ndax kat man Ahmadou Bamba jàquma ci ñàkk àdduna bu fekkee na sama xayib moo di dëddu gii ma dëddu àdduna ak poña mi loolu xayib la ju yëkkatu ko la te it duma gàcceel waajuramu jigéen moo di soxna jaaratullahi maam Mariama Buso radiyallahu taala anha moom ma nga saalum ca poroxaan jamono yi sëriñ moor anta sëli radiallahu taala anhu nekkee foofee la làqu woon ci atum 1863 kon mbokk yi fii lañuy ñuy di leen jox dig daje ëllëg insha allah ñu dugg nag ginnaaw bi nga xamee ne sëriñ Mbàkke Mor ànd Sali wàcc na ab liggéey lan moo nekkoon taxawaayu sëriñ Tuubaa xaadala wallaahu maxtaara lahu di ñaanal bu baax sunu sëriñ sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ibnu sëriñ cheikh Mbakke ibnu sëriñ Moustapha Basiru ibnu sëriñ Basiru xaadimu rasul sunu borom kàttanal ko lool yokk aw fanam ba mottali mbooleem li nga xam ne mi ngi ko naan liggéeyal xaadimu rasul ak mbooleem njaboru sëriñ Tuubaa yépp mbooleem kilifa diine yépp mbooleem taalibe sëriñ Tuubaa yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal